BHS Banque de l'Habitat du Sénégal Sococim Industrie ñoo leen may seen émission sama kër. ginaar gi baax na gi ne saa yoo ko wax ci say soxla muus mi baax gi ne saa yoo ko tuddee waxaale ko say soxla. jërëjëf mbokk yi ci seen ànd ak seen télévision Futurs Médias seen émission sama kër ñëwaat na samedi ji nañu koy defee léegi weer bu ne euh, waxoon naa leen kon nag ne woon naa leen euh, suufu jam ñaajo bi lañu fas yéene kon daal di waxtaanee euh, tey ji nag bu leen gisee ma jël depart kon ci buntu télé bi mooy dañoo fas yéene kon dem ba jam ñaajo bu ñu fa jógee dinañu rek daal di dem seeti ñi nga xamante ni seen xel dafa màcc loolu ci wàllum suuf di laboratoire bu jagleel wàllu woowu te comme d'habitude dinañu ànd ak ay partenaires kon nag ñu dem jam ñaajo ngir daal di càmbar daal di faram-fàcce lépp lu jëm ci wàllum suuf bi ñu dem bu ñu nee Diamniadio nag xel yi dem kon euh, ci projet yu mag euh, yi nekk fii euh, tey nag ñu tànn mbokk yi ñëw xool kon chantier wu waa Gétran ñoom bokk kon ci liggéey bi nga xamante ni pôle urbain bu Diamniadio ñu ngi koy rek daal di def waaye bu ñu nee pôle urbain bu Diamniadio du rek pôle bi fi mu nekk waaye dañuy wax Diamniadio bi yëpp ndaxte problème yi mbokk yi wax naa ko fépp la nee nañu suufu Diamniadio dafa sauvage suufu Diamniadio il faut ñu domte ko maanaam il faut ñu naxtaan ko cee tabax tey jii nag dañoo fas yéene gas ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi fi nekk daal di ngànk kon wàllum chantier yi kii di Mamadou Ba la ñu fas yéene daal di àndal mu gas ak ñun expliqué ñu lan mooy suufu Diamniadio ak ñoom lan lañ ciy fas yéene daal di def ba liggéey bi daal di mucc ayib seen émission euh, sama kër lay doon. bi nag boo leen ko gisee moom mooy benn immeuble lañ fi fas yéene kon na daal di tabax waaye laataa tabax bi fow ñu daal di bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ni moom mooy fondation bi fondation bi ku ko wax waxu mbirum suuf suufu Diamniadio bi nag duñu tàyyi di ko wax saa su ne suuf bi nekk na un sol a problème loolu ñu nangu ko ñu ñàkk ko nangu loolu moom mooy dëgg ma euh, Mamadou Ba tey ji dalaloon nga ñu dañu dalalaat di la ci gërëm bu baax a baax yow ak euh, say ay kilifa suufu Diamniadio waxoon nga ñu ci ñu brosé ci mais tey ji dañ ciy ñëw def focus mm-hmm. euh, lan nga ñu mën a wax dàmbale ci ci ci ci suuf bi waaw li ma leen mën a wax comme ni ñu ko waxee woon bële passé rek dañ koy rappeler suufu Diamniadio dafa nekk suuf ba nga xam dafa xaw a doy waar ndax dafa constitué wu de trois yi nga xamante ni deux ci kaw yëpp dañoo xaw a daal donc pour tabax ci du du lu naturellement comme ni ñu daan def ñëw gas rek wàcc tabax non dafa laaj nga def ci ay moyens yu bare bare bare laaj yenn technicité yoo ci war def pour mën a am fondation bu jaar yoon. Hmm. Euh, ci loolu nag damay euh, mbokk yi daal di for benn bi nga xamante ni euh, kon jot nañ koo dindi mhm. lii argile la. li ah, argile gonflante lañ koy wax argile bi moom moo nekk kon euh, ci kaw ci kaw a kaw argile bi ngay am mhm. léegi boo weesoo argile lu romb tuuti un mètre quelque rek yaa ngi jot lu ñuy wax marne gonflante mhm. marne gonflante mooy lii lu weex lii nga xam ne xaw ma ni pëndëx ñaari couche yi ñooy couche ci doy waar boo ko mhm. rombee nag euh, romb lu mat ay deux mètres cinquante jëm trois mètres yaa ngi am calcaire bi maanaam ay xeer la mooy yi ngeen gis lii couche bi dëgër na kanam mais léegi loolu argile bi ngay dindi ak marne bi faaw am loo ko remplacer la. d' accord mais instant ñaata ngeen gas pour mën a jot xeer yi. lii romb na tuuti deux mètres cinquante deux mètres soixante quinze maximum mais bu ñu ko rombee faaw ñu àgg lu mat trois mètres ak lu ci teg tuuti pour mën a jot ci xeer bi nga xam moo dëgër pour ñu tegu ci. léegi euh, question yu nga xamante ni yu bëri suñu internautes yi ñu ngi koy rek daal di posé damay fàttali mbokk yi ba léegi mun ngeen ñoo posé question ci euh, sama kër arobase euh, gfm point sn mhm. ngir xam kon li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu émission yi mais jot nañ ay question am na kenn ku ñu laaj mu ne bu ñu gasee gas bi nga xamante ni xóotul yan yan problème moo nar am ci tabax bi. xam nga fii comme ni ñu la ko waxee li nekk ci kaw ñaari couche ne ci kaw argile la ak marne couche yi nga xamante ni bu tooyee rek day gonflé day fudd te bu fuddoo léegi luñ teg ci kawam da koy yëkkatiwaale léegi bu ñu demee ba nga xam période bi nga xam période noor bi ndox mi dañ na day dellu place am léegi buy dellu place am léegi mouvement yooyu bâtiment bi def mooy indi ay fissure léegi pour éviter fissure yooyu da ngay dindi lépp li nga xamante ni mooy marne bi ak argile boo ko dindee ba jot xeer bi la nga defar sa assise bu dëgër comme ça mën nga def latérite nga arrosé compacté par couche de 30 centimètres maximum di ko compacté wala nga jël li ñuy wax sol ciment bu ñu mélangé ak Euh, dosé ko à 4 pour cent comme ça boobu tamit da nga koy arrosé di tooyal di compacté nga am léegi benn socle wala benn assise bu dëgër bi nga xam ne nga mën a teg sa fondation sans risque mais koo xamante ne tey jii am na terrain Diamniadio euh, foo xamante bokkul bien sûr ci pôle urbain bi mu am feneen terrain kooku naka la war a mën a def tey jii ba mën a am fondation bu dëgër parce que suuf si yaakaar naa moom moo nekk Diamniadio bi yëpp dem ba Tëngéej effectivement donc euh, loolu pour benn a métti ci moom pour nga am li nga xamante ne dafay doon la nga xam dafa war a durer dans le temps te boo bëggee lu yàgg dafa am lu mu laaj ci fondation loolu moo waral tey xëy na début bi ñu ngi doon wax travaux yi xaw na yéex dañu nekkoon ci traité fond de fouille bi maanaam fondation bi du da ñëw rek gas tabax non faaw nga traité sol bi soit remplacement ngay dindi suuf si yëpp ba à une certaine profondeur bi nga xamante nii day am importance lu mat 3 mètres ak lu teg wala 2 mètres 50 2 mètres ba nga jot xeer bi daal nga doog a teg sa latérite wala sable dune pour mën a nag teg sa fondation te da nga war a isoler lépp li nga xam te ne structure bi la ak sol bi nga fi fekk parce que parois yii nii tey bu nawetee dina gonfler mais bu gonfler fekk structure bi beneen affaire la faaw ñu isoler ko ba nga xamante ni tey suba bu sol bi bougé du laal dara bu delloo place am tamit du laal dara. Mm. mais li ma seetlu sax yéen ci seen travaux yi ngeen doon jot am. Mm. maanaam yéen doo leen am rez-de-chaussée. Euh, cest que da ngeen di da ngeen di def bâtiment bi de telle sorte que ay genre poutre laa doon gis yu dëgër yu ñuy def euh, ci suufu ci suufu bâtiment bi wala. plancher plancher bas bi. doo ko teg ci kaw suuf si da nga koy yëkkati bàyyil ko espace moo indi noow vide sanitaire boobu espace boobu nag mooy waral bu ban bi gonflé ak marne bi dañuy gonflé ci vide bi du laal dara ci bâtiment bi mm. bu ndox mi delloo mu taase wu taase wu waat ci vide bi. lu ñu mën a jàpp daal ci explication yi mooy ku mm. amul moyen dëgg ah mënut a tabax ci suufu jam ñaa jox dafay métti trop trop parce que li nga ciy def rek ci fondation soo demoon feneen xëy na mën nga ci raser rez de bu fekkee ni topp nga li la li la suuf si digal li la les bureaux d'études techniques yi ñuy liggéeyandool parce que duñ ko dañuy fàttale ni liggéey bi aussi dañuy am liggéey ak ay bureau de contrôle bureau d'études techniques ay mhm. bureau de contrôle ndax avant ngay def sa calcul de fondation sax dina am les ingénieurs géotechniciens dañu lay jiitu ci site bi def li ñu naan ay prélèvement def des expériences in ci site bi jël prélèvement yóbbu seen laboratoire def seen i expérience ak seen i calcul envoyé lu ñu naan euh, ay ay valeur lu ci mm. mel ni gamma sol bi lu ñu naan euh, l'angle de frottement loolu day bokk ci l'ingénieur génie civil bi jël di calculer am fondation mm. donc suuf si faw ñu xam caractéristique suuf ak fu mu mënti doon foo mën di tabax faaw nga xam caractéristique suuf soosu balaa nga ci tabax mais daguma la sax ci loolu sax mbokk yi ma leen di wax ne bu ñu jógee fii nii euh, ci ci ñaajo danañu dem euh, ci laboratoire du sol lu bëri ñu bëri nag xamuñu ne laboratoire boobu am na mais danañ fa dem incha allah mhm. ngir waxtaan ak kilifa yi fa ne ñoom itamit ñu wax ñu suufu Diamniadio yan caractéristique la daal di am mhm. loolu yëpp ci liggéey bi tey ji pour tëj euh, sëñ bi yan conseil mhm. ngeen mën a jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay particulier yi bëgg tabax suufu Diamniadio parce que duñ ku nekk moo am gros moyen yi nga xamante ni am ko pour tabax may euh, digal sénégalais yi ku bëgg a tabax ci suufu ñaajo bi doonul la nga xamante ni yomb na il faut nga fagor faaw nga am li ñuy wax tuuti saxaaru poste faaw nga am tuuti koom-koom te it euh, maa ngi leen di wax ñu jege lu mel ni les bureaux d'études techniques lu mel ni bureau Labosol yi ñu wax la li nga xamante ni moom nga fa war a def bu ko defee nga jege un ingénieur en génie civil wala un bureau d'études mu defal la les calculs de structure yi nga xamante nga xam lan moo fa dem mhm. sinon investissement à lay nekk parce que bâtiment doonul la nga xamante ni yomb na waaw loolu daal laay digal sénégalais yi nga xamante ni bëgg nañ tabax ci zone bu mel ni zone Diamniadio euh, jërëjëf euh, monsieur Ba ak ñi mu àndal sëriñ maa ngi leen di gërëm bu baax a baax euh, ci li ñu teew ci émission bi wax naa leen ne ñu jóge fii ci jam Diamniadio ngir dem kon ca laboratoire des sol loolu yëpp mbokk yi ngir indi leen ay leerange yu wóor te leer lu jëm nag ci suufu jam ñaajo ak beneen suuf bu njuróog suufu Diamniadio yu ci mel ni tëngee jakk yi ni mel ba seen émission sama kër lay doon ngeen topp ma lépp luy leer lay doon ginaar gi baax na ci kër gi. alors euh, mbokk yi euh, ànd ak seen télévision Futur Média seen émission sama kër waxoon naa leen ko sànq ci Diamniadio ne woon naa leen ne bu ñu jógee Diamniadio dañuy ñëw fii ci SELEC euh, xool wax de sol ñu ngi ci ànd ak directeur am di Pape Goumbalo sëñ bi loo maa lay gërëm bu baax a baax ci nangu bi nga nangu ànd ak ñun télévision Futur Média. jërëjëf jéen ba ci ni ñu seet si. <laughs> tey boo gisee ñu ñëw euh, tànn def yow émission jébbal la ay laaj wax naa la ko mooy suufu Diamniadio bu ñu demoon tey jii balaa ñuy wax waxu Diamniadio est-ce que mën nañu expliquer un peu CEREC lan mooy liggéeyam. waaw oh, CEREC mooy laboratoire bi nga xam ne euh, nguur gi da ko fi teg mu bokk ci ministère des infrastructures pour saytu lépp luy suuf ak lu ñuy liggéey suuf ak lu ñuy teg ci suuf mooy. suñ bëggee defar ay tali suñ bëggee defar ay kër suñ bëggee xàll yoon fekkee ne dañu bëgg a sàmm euh, ndox mi dugg ci kër yee lépp loo xam daal dafa jëm ci suuf ak ndox ak ci xeer loo xam ñoo koy gëstu di ko saytu di conseil nit ñi ba pare di seet na la ñuy tabaxee. fi ñu nekk nii fan la. fii mooy laboratoire bi nga xam ne suñ jëlee xeer yi comme ñu dem jëm ñaayo tey am ñu bëgg a tabax woo ñu gas gëstu. jëlee fa xeer yi nga xam ne dañ ci war a teg kër suñ jëlee xeer yi nag il faut ñu indi ko ci laboratoire bi pour dugal ko seet yan façon xeer la ak lu mu àttan ak nu muy def fekkee dañ ci def ndox ak suñ ko chargé nan la xeer yu comporté wu mooy daal dañuy gëstu fii pour préparer nan la ñuy defaree fondation kër yi. bu ñu nee jam ñaajo est-ce que yéen jot ngeen liggéey ci suufu jam ñaajo. waaw liggéey nañ ci lu bëri liggéey nañ ci ay at yu bëri bëri balaa sax ñu fay indi projet jam ñaajo bi te bi ñu commencé liggéey jam ñaajo ba léegi. liggéey nañu ak ay sociétés yu fa nekk yoo xam ne euh, conseil nañu yeen gëstu seet naa nañu defal seen i fondation mm-hmm. tey lu ñu mën a jàpp ci suuf bi suuf bi man damay dégg rek ñu ne suuf ji dafa bon suuf si baaxul mais amul suuf bu baax ak suufu bon li ñuy wax mooy nga xam xarañ si nan ngay liggéeyee suuf si euh, suuf boo gis rek soo xamee nu mel da nga xam nan nga mën defee fondation yi li ñuy wax tey dañaan Euh, suuf même soo xoolee garab yi garab gu nekk du sax ci suuf su nekk donc yow it amoo droit jël bâtiment bu la neex rek ki def ko suuf la parce que euh, fondation yi li ñuy wax mooy ndax diggante bâtiment bi ak suuf si donc yow soo xamee sa bâtiment ni mel soo bëggee fekk suuf nu mel il faut nga xam suuf nu mel pour xam nan ngay defee yan fondation pour que mu téye fa même ci biiru ndox biir ndox sax mën nañ ci mën nañ ci tabax kër def ci fondation. matériel bu nekk dafa am matériel boo xam day tame suuf si pour ñu xam suuf si mbaa euh, Euh, woyof na wala dijj na wala sew na am na yenn matériaux yoo xam ne dañu seet ma xam suuf si day naan ndox comme li ñuy wax euh, euh, suuf ban yi soo jëfee ndox bu bëri daf koy naan. comme bu ñu nemmeeku ci ci ci jam ñaajo muy suuf day naan ndox mu bëri ba pare soo wooyee nag day dëgër këj comme kekk li ñuy wax léegi dañu am kekk léegi am na suuf yoo xam ne dañoo dëgër comme soo jëlee suuf bi nekk ci dun yi ci suñ tund yi. wala suufu joor dafa dëgg kër du naan ndox. c'est rek 1949 ba léegi mu ngi fi te moo jàppale nguuru France bi mu bëggee tabaxaat Afrique après guerre donc léegi ba léegi Sénégal li mu doon am laboratoire baa mi ngi dëgg te léegi sax. dafa gën a xariñ euh, parce que dañ ko bëgg a def autorité dañ ko bëgg a def laboratoire national boo xam ne dañuy obligé nit ñi looy defati ci suuf ak looy defati ci ndox ak looy defati daal ci suñu environnement bi nga ñëw sa rek ñu conseil la. ba pare jox la loo xam ne wóor na ne da nga dem fu sori te sa yëf du daal. sélection dafa war a nekk passage obligé euh, ci képp ku bëgg a tabax wala ñi nga xam dañoo bëgg a xàll tali. monsieur Lo waaw waaw waaw. léegi fi toll parce que ñu ngi biir ministère bi nga xam ne mooy defar tali. Mhm. te ñoom généralement sax bala def dara dañu ñëw laaj ñu indi ñu échantillon ñu topp ànd ak ñoom ci tali bi goudron sax. fi ñu toll nii ci gannaaw fa lañ gis même goudron sax na lu ñu liggéey bu baax a baax a baax euh, ci wàllum suuf waa Banque de l'Habitat du Sénégal ñoom it tamit liggéey lu am solo ci financement ndaxte léegi pôle urbain bu Diamniadio bokk na euh, ci seen liggéey la ñuy gën a dugal maanaam seen loxo euh, ci jamono ji ñu toll kon nag dañuy dem seetaan kon waa Banque de l'Habitat du Sénégal lañ ñu indil kon ci ay leerange ci biir pôle urbain bu Diamniadio rawatina nag seen pacte 35 bi nga xamante ni ñàkk ju jot wóorul waxaale ko say soxla Mamadou Gueye conseil technique euh, du directeur général de la Banque de l'Habitat en charge des projet stratégiques Banque de l'Habitat yàggul trop feete na ans donc bañ ko créé léegi mat na diir boobu euh, li tax également nguur bi créé ko c'est parce que euh, daf ko soxla woon ngir que mu dimbale nit ñi ci dëkkuwaay maanaam euh, mën leen defal financement yi nga xam ne nii dafa leen di mën permetre euh, ku ci soxla kër nga am ko et puis occuper ko en pleine propriété loolu moom la moom la banque de l'habitat nekkee et depuis 35 cinquante donc mi ngi koy def mi ngi ko dooroon ci ay cité yoo xam ne nii yu mel ni ay HLM Grand Médine nga xam ne ni opération 1000 logements la woon c'était une opération test ay yu mel ni HLM Grand Yoff donc foo xam ne nii daal maanaam dara nekku fa ñu def fa ay kër banque bi financé réalisation yooyu ba pare nag dimbale borom kër yi famille yi ménage yi pour que ñu am ci ñoom tamit euh, seen def ko seen dëkkuwaay. boo xoolee pôle urbain Diamniadio état bi dafa jël décision def fa ay dëkkuwaay boobu dara nekku dinaa rappeler rek ne projet yi promoteur ak développeur yi ñoom ñoo koy def. banque boo gis li muy leble ci ay ressources lay jóge li muy leble dafa am yoon boo xam ne ni loi bi daf ko ko teg. mënul am parce que am na xaalis rek da koy joxe nu mu ko neexee déedéet dafa am lu mu war a observer en termes notamment surtout par rapport au dispositif prudentiel en terme de prise de risque banque bi dafa am nu mu war a taxawee. alors boo gisee boo jëlee ñaari contraintes yooyu il faut que nga am mécanisme de financement yoo xam ne nii dana la mën a permettre nga regle ko bi ci jëkk levier bi jëkk ci mécanisme yooyu moom mooy phasage projet. da ngay gis nit ko am benn projet boo xam ne ni cent milliards mais dans sa réalisation da koy phaser de telle sorte que le besoin de financement bi ci génn mu nekk un besoin boo xam ne nii en tout cas en dans une logique de gestion de risque dana la mën a permettre nga def phase bi nga xam ne nii ci la besoin bi tollool bu paree ñu jaay ko mu fay li mu war a fay ñu continuer waat ainsi de suite donc le phasage loolu lay permettre nga def mais phasage boobu rek doyul parce que bu fekkee ne ni ñi intervenir dañu bëri nga phasé pour kenn ku mel ni jay na ba ñëw projet am nga phasé waat finalement dangay ngay dem ba li nga doon bañ ci départ ba mu dab la parce que mënoo woon jox jay na ba cent milliards yi mais boo dajalee bëgg-bëgg ku nekk da nga weesu cent milliards donc loolu daf lay dab donc pour ñu régler ko deuxième levier bi la ñuy jël mooy partage risque bi donc mooy invité ñeneen ñoo xam ne nii. mën nañu nekk banque comme mën nañu nekk ay investisseurs institutionnels yoo xam ne nii projet yi ñuy def war na leen mën a intéressé par rapport ak seeni attentes donc ci kaw loolu banque de l'habitat mi ngi ci en route di créer loolu li ñuy wax benn fonds d'investissement boo xam ne nii qui va s'adresser pratiquement à tout le monde et en particulier à d'autres institutions bancaires ou bien à d'autres investisseurs institutionnels pour que ñoom li ñuy xaar ci projet en termes de rentabilité en termes de liquidité et en termes de sécurité ñu mën leen ko assurer ci par le biais de ce fonds d'investissement la donc ça va se gérer à travers des sociétés projet liggéey bi ñu ngi ci ci xalaat nañu ne bu sottee danañu mën a permettre ñu mën a am tout ce qui est nécessaire en terme de ressources de financement pour les projets du pole urbain de Diamniadio noonu la ñu mën a def loolu mooy pour promoteurs yi ak développeurs yi su weesoo ñooñu nag des na les particuliers parce que liggéey bi promoteur yeeg développeur yeeg ñun ñëpp ñëpp di def finalité bi kan la mooy kër yi mooy dëkkuwaay mooy borom kër yi naka la ko client yi di jëndee ñu aussi am na benn financement bu ñu teg spécifiquement pour ñoom boo déggee moom la ñuy wax ay PAC cinq ñu déjee ko opération bi PAC 35 exclurul le financement classique mais PAC cinq dafa nekk euh, benn euh, produit boo xam ne. dañ ko dédié au projet Diamniadio package la maanaam dafa am ci biir PAC 35 cinq certain nombre de produits yu ci nekk d'abord danañ la mën a defal crédit boo xam ne nii 35 million la mën na dem ba foofu trent cinq millions mën nga ko fay ci ay 25 ans au taux intéressant de 6 pour cent ensuite am na beneen produit bu nekk ci biir bu ci dugal mooy li ñuy wax assurance compte protégé boo xam ne nii dangay ngay souscrire benn versement annuel boo xam ne ni boo ko defee comme àddina xaw na tëradi bu fekkee ne nii nit ki ko def dafa dem moo jëlee exemple boobu wàññeeku ñi mu bàyyi gannaaw danañu mën a am loo xam ne nii par le biais de ce compte protégé là au moins assurance bi dina ko mën a teg ci ay loxoom loxoom waa waa succession quoi je veux et ensuite carte yi ka ay visa yi nga xam ne nii on est tout la gamme de cartes Euh, yooyu tamit euh, dañ ci def benn faveur dans le cadre du pacte 35 mooy que ni dañu am réduction wu ticket d'entrée bi de 35 pour cent euh, bu weesoo loolu aussi toujours ci pacte 35 bi xam nga léegi dañu nekk ci mbiru TIC li ñuy wax technologie information ak yooyu ak internet abonnement bi ngay am ci portail BHS dugg ci. pour mën a am ay éléments d'information ci sa compte nu muy doxeek yooyu yëpp wala ordre yi ngay joxeek yooyu yëpp loolu abonnement boobu maintenant dafay gratuit su fekkee ne ni da nga nekk ci PAC 35 bi. maintenant bu weesoo loolu nag ñan ñoo koy mën a ñan ñoo ci ciblé fonctionnaires yi la ñi nga xam ne ñi ngi génne ci euh, école de formation yi ak ñi ñuy wooyee corps émergent diaspora bi ñi ngi ci biir également euh, plus euh, le secteur informel. voilà ñooñu loolu daal produit boobu moom moom la ñu jagleel ñi nga xam ne mooy nit ñi nga xam ne dañu soxla kër ci projet wu pôle urbain wu Diamniadio bi. waxaale ko Entreprise sénégalaise citoyenne, symbole de modernité, la Socosim reste un leader dans le paysage industriel. Un ciment de référence aux normes européennes, une disponibilité, un prix stable La volonté de la Sococim, être au service des professionnels du bâtiment et de la population. Depuis plus de 60 ans, la Sococim construit le Sénégal. merci pour euh, cette page de publicité euh, xam ngeen ne dem nañu ci chantier yi euh, dem xoole li nga xamante ni moom mooy type de sol yi nga xamante moom moo am fii ci Diamniadio ak laboratoire des sols yi tamit ñu dem yër ak ñoom li nga xamante moom mooy liggéey bi dem nañ BHS ñooñu suñuy partenaire la ñu bokk waaye xam ngeen ne nag ku wax lu jëm nag ci wàllum fondement fondation wax bu baax a baax lu jëm nag ci wàllum ciment moo tax nag seen émission sama kër dañoo tànn saa su ne di ànd ak ñi nga xamante ne mën nañu wax ñoom ñooy ndeyu ciment yi waa cimenterie kon bii di Sococim la ñuy àndal ñoom ñu ñëw ak ñun ci qualité bi waaye rawatina nag këyit yu wóor yi nga xamante moom moo leen di may ñoom ñu am ciment bu gënte wóor ñu ànd ak ñoom waa Sococim ñëwaat. waxaale ko say soxla. fii ci bépp saako ciment bu ñu defar daf ñuy wóor na day bokk ci tabax ay jumtuwaay yu rëy yu mucc ayib moo tax ñu ne tey nañ leen jagleel visiter loon suñu laboratoire bi ak suñu certification yi. asalaamaaleykum man la monsieur ci cimenterie bi laboratoire bi fii lépp. di commencer te lépp fii lay mujjee lu tax ñu di ko wax moo di que xeer yi bu jógee fële si carrière yi fii la ñuy calculer xool naka lañ leen waree jaxasee naka lañuy war a pour que nga bu a am produit de qualité su ciment bi génnee suñ ko mélanger ba pare am na ay am na ay euh, équipement dernière génération yi nga xam ne moom lay wax moo ñuy permettre ñu saytu bu baax lii dugg di ngeen ko gis loolu bu ñu bu ñu paree foofu rek automatiquement jal boobu ñu defar nga xam moo jaxasee xeer yi moom lañuy jàpp wol ko mooy lii ngeen gis ni mu nekk sunguf bu nekkee sunguf moom lañuy jàpp togg ko bu ñu ko toggee moo ñu jox produit bi bu ñu ko toggee yoo pare jaxase ko sunguf yi ngeen gis ni ak dosage bi ñun ñoo koy gérer toujours suñ ko jaxasee moo leen jox qualité ciment yi ngeen gis ñeenti qualité ciment nag les Sococim di defar cm seen cm seen CM3 si CM2 bi ñaari qualité moo am 32,5 ak 42,5 ñeenti qualité ciment yëpp nag dañ koy defar pour mun a tontu li nga xamante ne moom la client bi soxla client bu nekk am lu mu soxla ñun nag daf ñu génne quatre produits yi pour mun a répondre seen demande. quatre produits yooyu bu ñu ko génnee ku si nekk yaa xam ni nga koy utiliser bi ma si bi ma leen jox comme firnde rek booy CM3 bi CM3 bi moom dafay barrage Manantali jamono 1985 ba léegi mu ngi taxaw soo ko si ma ko defar su boobu su boobu jeexee ñi nga xam dañuy tabax booru géej ak si suuf yi nga xam day xaw a buuj suuf yi nga xam day xaw a buuj yooyu yëpp CM3 lañ koy utiliser donc benn exemple la ngi doon ma jox leen si euh, utilisation ciment yi loolu yëpp nag ñu pour ñu def ko si bës bi dañ def lu tollook ñetti téeméeri analyse fu nekk ñu ngi càmbar fu nekk am na ay nit yuy daw daw dem fii jëli ay échantillons indi ñu analyser ko suñu jumtuwaay yi nag dernière génération yi gën a xarala si àdduna bi lañ yore suñu laboratoire bi soo xaymaa ñaat lañ dépensé passe na milliard ay milliards loolu yëpp pour mun a rek génne ciment boo xamante ni de qualité la année yooyu bi ñuy def nag équipement yi mooy yi ngeen gis nii yi ngeen gis nii ah su yooyu yooyu mooy yii mooy définir chimie bi bu yooyu paree bi mooy définir naka la naka la ciment bi sewee naka la ciment bi sewee su yooyu yëpp dajaloo moo ñu permettre ñu ñuy ñëw oh suñu mbokk bitim réew tubaab yi ñu ñëw càmbar ñu xool ñuy liggéeyee xool suñu équipement mais gis nañ ne Sococim équipement yi ngay fekk fii ñu ngi fi fekk mooy gën a nekk dernière génération soo moytu par rapport ak Europe ou ñu tolloo et ñoom bi ñu ñëwee xool ni ñuy liggéeyee tamit gis nañ ñun ñu liggéeyee noonu la ñuy liggéeyee ñoom tamit fële Europe loolu moo tax tey jii nii ñu ne ciment Sococim am na certificat. boobu nag beneen domaine moo koy mooy mooy mooy gérer naka la ñuy defee mbirum certification dal leen ak jaamu si sukk si man la Marième Ndour Diallo donc di responsable sa e, di ñëw ànd ak yéen di leen leeral ci ñeenti xeetu ciment yi nga xamante ni moom la sukk si jagleel population bi euh, di leen wax ne ciment bi buñ koy defar tàmbali ca carrière ba ba ni muy agsee ci saak bi ba ni muy agsee ci seeni loxo dinañ ko saytu juróom fukki yoon ci wàllu qualité bi seytu boobu ñu koy saytu bokkul na ci li tax ñu jox ñu diplôme bi ñu naan euh, certificat CE CE bi dina tekki benn mooy tey bépp xeetu ciment bi nga xamante ne fabriqué nañ ko fii ci Sococim mën nañ koo méngaleeg ciment yi ñuy defar Europe ci wàllu qualité ñaareel bi mooy Sococim andil na leen garanti ne ciment bii muy defar amul benn sikk-sikk te ciment bu mucc ay la te nag saa yi boo ko jëndee ciment qualité boobu ngay fekk ci ciment bi tey jii nii buñ naan certificat Sococim am na ko mooy am na visa bi nga xamante ne ciment bépp bi muy defar fii ci Sococim mën na am dem ba fii ba Europe CE yooyu na ngeen xàmmee bu baax dañ koy taf ci saa yi cimenterie bu am CE tey mooy wane ne yi su ne boo jëlee sunu ciment même qualité bi lay nekk dafa constant waaw te tey tey sunu ciment mën nañ koo yóbbu fii ba Belgique ba France tout ce communauté européenne boo fa àggee ciment bi ñuy defar mook sunu ciment bi benn la. tampon boobu ñuy estampillé ci saa yi mooy wane tey ne Sococim am na visa pour jaay ba Europe. kon mbokk yi fi la ñem ak yéen seen émission sama këru tey jii di yaakaar na ne jële ngeen mbégte ak njariñ bu baax a baax ci liñ leen indi doon tey ci suufu jam ñaajo bi gis ngeen fi ñu dem yëpp gërëm bu baax nag suñuy sponsor euh, banque de l'habitat du Sénégal Sococim Industrie du ma fàttee gërëm it tamit équipe bi ma àndaloon Amza Petit Mamor ak i tamit Abdourahmane ci son bi di leen jaajëfal bu baax di leen jox dig daje incha allah euh, fi lekk weer bu soobee borom bi ci yeneen xibaar yu ñeel foncier ak immobilier. BHS. Banque de l'Habitat du Sénégal Socosim Industrie ñoo leen doon may seen émission sama kër